ko noonu xamoo kooku ndax mu ngi ci société bi di dund ba léegi looloo gën a pire kon Pastef amul lu mu dundul yow koo xam ne ne sàccu la lekkalu la yorelu la mais yéen lan ngeen bëggal Ousmane Sonko à la lan ngeen ko bëggal lu tax ñun sénégalais ñu bon mën a sosal nit dañuy gis nit defuñu dara ñu bañ ko te xamuñu sax lu tax ñu bañ ko mais yéen laissez la chance à Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko lan la lan la. lan la lii ngeen di def nii moo tax ñu bëri laa la wax dañuy juddu Sénégal du ñu bëgg mm, euh, euh, euh, yaru Sénégal wala màggee fi dañuy préférer daw am expérience ñu ñëw ci dëkk Europe yi di fi jëriñ parce que yii moo tax Alla Blondin Diop ñun ñoo ko sacrifié keneen na keneen ñi fi dee ñëpp laa la wax ñi fi am tur Mamadou Dia ñun sénégalais ñoo leen sacrifié parce que de yàlla daf ñuy wàccel nit boole ñu at moom pour mu defal ñu révolution wala mu changel ñu doxal ñu suñu aqaat suñu yelef ñu toog di ko seetaan wala ñu toog di ko sosal di ko duulal ci loo xam ne ne xamaluñ ko dara Adji Sarr réveillé benn jour Adji Sarr ku ñu violé nañ leen dëgg ku ñu violé dina mel ni Adji Sarr maison de luxe Adji Sarr la ñu mujjee violé nañ leen waxante dëgg ko de filles on la on les a violées au Sénégal est-ce que dañoo am eh, état bi eh, Adji Sarr nekk maanaam di nekk ci appartement de luxe di takk cheveux ba ci xottu taat yéen Adji Sarr yéen war yéen warool waru warul sax nooyu ci dëkk bi quatorze morts sont décédés sur ce dossier là léegi on parle de capitaine Touré capitaine Touré kon dafa jaay dafa jaay liggéeyam parce que dafa gëm Ousmane Sonko wala dafa bëgg Ousmane Sonko capitaine Touré ñëpp defal ko témoignage ne yàgg na dans la gendarmerie di def liggéeyam enquête bu nekk enquête dëmm bu nekk capitaine Touré mëne na ko te musu si am benn benn benn benn erreur comme par hasard comme par hasard enquête Adji la capitaine Touré mënul résoudre mais mais vous êtes des tarés mais yeewu leen yeewu leen on vous vend de la poudre d'or pendant que ça l'Afrique le monde il évolue gis nga révolution du Ousmane Sonko moo koy def du Elisa moo koy def du Balaké moo koy def la révolution ça peut pas faire être par dix personnes c'est toute la population Mali ba ñu bëggee révolutionner juk dañoo ànd benn imam imam bi accompagner leen Mali bi yépp juk loo taxaw tey ji ala Mali ala Mali si vous vous rappelez pas de l'histoire du Mali je vous la raconte Mali il a jamais cru euh, a jamais été stable Mali ba mu doonee Mali ñun ñëpp ñu jàng l'histoire de la du Mali Mali guerre la mës a xam Mali guerre la mës xam alamu tey Mali Mali moo ci moo mu ngi dund dund bu sen Mali génne na fi base militaire français yi malee ngi ci jàmmam malee ngi moom a ressource nànk-nànk alamu tey est-ce que ñun euh, euh, dee ñu am sax laa la wax ci révolution euh, bu ñuy mëne nii Mali si révolution wam bi est-ce que am na ko non non non non on ne meurt qu'une seule fois man Elisa man maa ngi fii nii xam nga lan moo ma tax ma def sama live man du ma forcer kenn ne ko génnal je suis personne pour dire à qui que ce soit génn leen lenn laa mën a wax mooy quand on fait sa combat là on le fait pas pour le jëm Ousmane Sonko li ñu nekk di dund nii c'est de l'injustice et tous les jours Macky Sall mu ngi koy teg suñu kaw ñun population sénégalais bi ñu koy nangu di toog di ko seetaan Macky Sall ñun ñoo bëgg mu ñuy boom ñun ñoo bëgg parce que ñun ñëpp bu ñu booloo ne ko stop kon day jeex mais ñii bu ñu xeexee ñeene ne du ñu xeex ñii xeex ñee ne du mais combat bi duñ ko gagné on va pas le gagner leen waxante dëgg moo tax man ma ne man man su ma amoon ndogal ci Ousmane Sonko man Elisa dama naan Ousmane Sonko demal nga tëddi kaso nga toog ñun ñëpp ñu toog dinañ xam à kii saba va revenir le Sénégal dinañ xam kan moo baax pour le Sénégal boobaa Macky Sall noo toog pendant vingt suñu yoon nekku si mais lan ngeen mën a reprocher Ousmane ko koo xam ne ne mënoon na judd ci réew dem ci beneen dëkk jàngee fa defu ko. Ousmane Sonko il a fait tout son circuit scolaire xool leen ko au au Sénégal diplôme yi mu am yëpp taxul mu génn réew ba ñëw ne dafay ñëw installé fii au niveau de l'Europe doomam yëpp amul kenn ku ci nekk fii nii au niveau de l'Europe jabaram ñëpp kon kooku bu buggul réewam xaw ma lan la bëgg gis nga nag nit buñ lay noot dangay am foo xam ne ne fa ngay yem Ousmane Sonko dañ koo nooto nooto nooto nooto noot mu xam ne ni ñii suma ma continuer di demante ñoom ci deman demante ñëw bi man maa ci pet nan leen waxante dëgg bakkan dafa précieux munul ñu woo ko procès saa yu demee procès ñuy mm-hmm. attenter à sa personne balaa caa mu toog buñ koy rey ñu rey ko mais il aura euh, dee na di dignement man loolu laa gëm man suñ may dee su may dee je préfère mille fois mourir debout que de mourir à ñun combat bi dañ koo gëm gàcce ngaalaama waa Ziguinchor ay xale jàmbaar malgré tout ce qui se passe à Ziguinchor malgré tout ce qui se passe à au Casamance wane na leen Sonko si ñoom la bokk si ñoom la bokk seetuñu si lu ñuy perte si ñoom la bokk parce que loolu lañuy wane parce que ñun Sénégal loolu la ñuy wane on montre encore une fois duñu bo benn bopp. bu ñu nekkoon benn bopp duñ fi am xajjat seen que kii Ziguinchor la juddoo kii joolaa la kii njaago la kii portugais la nañu jàpp ne ñun ñëpp ay sénégalais lañ ñun nañ ko jàpp mais non non tout le temps ñu ngi ut ay sikk Elisa bu waxee ñu ne nee man day wax rek moom portugais la fee la fee la bokk moom capverdienne la fee la non on est des sénégalais du moment où on porte le drapeau et e est né au Sénégal et qu'on jouit tous nos droits man kenn ma doon sénégalais bu dee vote damay voté bu dee pièce d'identité am naa ko man am naa loo xam ne ne jomm naa di ko wax wala di ko def dama toog trois jours ma ne ma ne génn mais lii di xew dafa ñaaw comment on peut vivre ça le Sénégal il en sang tele yëpp télé yëpp di andi ay yëfu caaxaan mu mel ni Sénégal dara xew fa dara dara dara dara dara ñun si on avait un peu de respect pour ces gens qui ont perdu la vie le drapeau devrait être en berne drapeau bi en berne lu ñuy dem di supporter ay George Floyd wala yeneen histoire lu tax duñ ko def pour les propres gens de notre pays lan moo tax duñu génn et pourtant vous étiez nombreux ba ñu wootee manifestation manifestation bu ñu autorisé on est nombreux mais quand c'est pour réclamer l'injustice qu'on est en train de subir personne ne sort personne ne sort chacun mu ngi toog di xalaat boppam mais nii rek lay demee nii lay demee je suis désolé je suis désolé man ñi nekk ci kaso yi laa yërëm parce que jàmbaar yépp ñu ngi ci kaso bi te nii lañ ko nar a gis nga ils vont nous traquer benn par benn képp koo xam ne ne yaa ngi ci diaspora bi wala yaa ngi Sénégal jàppal ne ne combat bi buñ ko eggaliwul tamit i vont nous traquer une par une commencé nañ ko ba pare au nom de quoi au non de quoi ñun daal ñun amatuñu droit bokk ci réew mi amatuñu droit am lu ñu nakari ñu ne dañ koy génn ñaxtu ko Ousmane ko amul droit ñu koy malmené mu ne non non je vais plus y aller parce que su ma continuer di dem dinañ dem ba dinañ attenter à ma ndax njëkk nañ ko essayer di ils vont persister balaa caa ma ma toog sama kër ñu fekk ma fa rey ma benn yoon ñu xam ne ne joree résister man loolu laa gëm loolu laa gëm. yéen vous vous imaginez depuis le dossier Adji Sarr combien de personnes dundatuñu ñu nekk ci fitna depuis 2021 ñu ngi ci fitna ba léegi à quand ça va s'arrêter sàll joxuñu ñu lekk joxuñu ñu naan mu ñuy appauvrir ba pare di sàcc suñu alal chaque jour mu ngi sàcc suñu alal mais yéen boo leen amee loolu ni lijjanti loolu ngeen war a lijjanti nan la nan la nan la Macky Sall dem di lebaat français yi xaalis vous vous êtes pas posé la question pourquoi Macky Sall di jeexal ba pare dem di lebaat xaalis des milliards milliards yooyu fan la koy dugal ça veut dire mois ñun ñëpp dinañ fay pendant des années encore des des des des des comment dire des sommes exorbitantes yoo xam ne ne ñun xamuñu fan la ko dugal et c'est malheureux c'est malheureux ñu toll foo xam ne ne dañuy gis suñuy ndaw ñuy dee di gis suñuy yaay yi di dee suñuy papa di dee duñ ko naqarlu amul ci benn réseaux sociaux buñ ko fësal tale yi am wone ko te ñun duñ ko naqarlu troisième pouvoir ay nit di dee waxuma sax benn nit mais ay nit di dee mu mel ni Sénégal dara xewu fa ñoom Macky Sall di gere seen meeting mu mel ni dara xewul Sénégal mel ni boobu ñu ay nit mel ni ne Sénégal tàkkul ba ay nit ñàkk si seen liggéey ñi yàq ñàkk si seen alal mu mel ni lu naturel léegi Sénégal moom génn manifester dafa mel ni lu naturel dee moom dafa mel ni lu naturel léegi nit yi dañuy dee on s'en tape on dañuy jàll dem leneen leneen man dama wër TikTok bi di gis ay ñoom Mame Ndiaye Savon ay un cas voire plus ay euh, Ndeye Gueye Demba Amina Poté dëkk bi ba muy tàkk Amina Poté mu ngi def live direct mu ngi def live maa ngi gis plus de cinq cent mille personnes ñu koy suivre mu mel ni dara xewul Sénégal ma ni man est-ce que lii c'est c'est normal c'est normal qu'on en arrive à ce point là nañ leen waxante dëgg nañ leen waxante dëgg ay nit dee ci affaire wu Adji bi ay nit ñàkk si seen liggéey ah Ndeye Khady Ndiaye alamu ñàkk na si doomam leneen ak leneen ay nit nekk ci kaso bi injustement injustement eh, Cheikh Omar Diagne nan lañ ko tëjee Abdou Karim Gueye nan lañ ko tëjee Ousmane Sarr activiste mii di ñëw fii nii sama panel di waxtaan ak ñun jàpp nañ ko jàpp nañ ko démb jàpp nañ ko booy bu ñu rey 14 ans 15 ans la am ay booy yu ndaw à fleur de l'âge ñu jàpp leen Pascaline Diatta une sœur koo xam ne ne xam naa ko jàngandoo at moom quelqu'un de très calme bëgg réewam wax benn discours boo xam ne ne waxu fi dara kaay leen ñu rey wala quoi que ce soit juste sortez et battez-vous parce que boo leen xeexul seen njaboot yi ñooy subir loolu la wax tey ji ñu ngi nii tëj ko maman Amy Dia keneen nag keneen ñu leen di jiñ ay force force spéciale ba pare ñu ne on s'acharne pas sur nous ñi nekk ci kaso bi la majeure partie c'était c'est c'est c'est des militants de Pastef xam ngeen ko c'est des militants de Pastef et quand vous dites que Sonko kenn malmené mënewu ko kenn maltraité wu ko Ousmane Sonko lii waaw dafa mën a victimiser wu yéen a naa fekk dëgg Ousmane Sonko buñ ko victime buñ ko malmené mënewul woon xaw ma kon nan lañ ko def. Ousmane Sonko mooy le seul opposant boo xam ne ne chaque jour ñu ngi koy traqué numéro un wam numéro deux wam numéro trois wam lépp mu ngi kaso bu ñu nekkul kaso ñu takkal leen ay bracelet électronique ay ndawam. ala ala ala yéen seen xam ngeen xam ngeen Lamine Niass Lamine Niass bi dëkk Mbour da ngeen ko mës a gis mu saaga li Elisa Sagna wax Lamine Niass du ko wax. Lamine Niass mu ngi sensibiliser du matin midi soir les jeunes allez voter di ko def si ay sketch ala mu tey mu ngi ci kaso bi et pourtant c'est un soutien de famille waxul lu tax ñu war ko mën a jàpp lu dul bëgg réewam di xeexal réewam te tey la ñu gën a am njàmbaarte ndax ñu ngi ci kaso bi di résister. ànd ci ak Seydina Ousmane Sonko. gis nga ku jàpp ne ne ne Ousmane Sonko bu deewee moom moo perte wala ñun patriotes yi ñoo perte wala Pastef bés buñ ko dissoudre ñun ñoo perte ñun on restera des révolutionnaires man dama koy wax. je le dis haut et fort et à vous les patriotes on restera des révolutionnaires haut et fort Ousmane Sonko moo ñu def bañkat Ousmane Sonko moo ñu def lu ñu doon tey jii. gàcce ngaalaama ñun ñeewuñu nit on n'est pas stupide. du ñu topp nit pour ses beaux yeux non non non non Ousmane dafa am lu tax ñu gëm ko on n'a jamais cru à ces politiciens. ñu wan lu kenn wanuñu mu ñuy jaral démb am na jeune bu dee lan la wax da man de sama sama liggéey wàcc na jeexal naa. walla bu ñu bu ñu jàpp euh, Ousmane Sonko kon kooku il est mort dignement ndax ba muy génn xeex xamoon ne ne ne amaana ne yàlla bu jëlee bakkanam moom génn na xeex. mais vous confondez vous confondez ñun dañoo am lu ñu gëm ñun ay ndaw yu am jom lañu bay Fall bu toj sa cottu nday boobu lay waxal yow bay Fall saa yoo xëyee yaa ngi taal sa caméra di kat sa data nday di duul yow amoo loo wax yow danga nga perte nekk Europe bi perte nga def yow nekk Sénégal sax moo gën parce que ay naaféq ngeen yéen état moo leen di dundal te ñun état dundaluñu ñun mënoon nañu choisir la facilité ànd ak état mais yàlla bu ñu ànd ak état ay nitu dëgg lañu ñun ku ñu ciy bëgg mu bëgg ñu ku ñuy bañ mu bañ ñu ñun xoolal bu ñu tëjoon kaso sax dañ xoolal gàcce ngaalaama on est fier on est fier du combat qu'on mène du ñu xof du ñu tiit tey la ñu gën a ñeme Macky Sall lu ñu ko bëgg wax tey lañ ko gën a mën a wax mais lan la bakkan dafa précieux ce sont nos frères qui de tuer ce sont nos enfants qui de tuer mais kenn du ko wax kuy nit laa la wax doo nelaw man trois jours j'ai pas dormi maa ngi nii dama waxoon du ma wax dama ne du ma wax mais dama taal sama vidéo di dugal mënumaa dugal ma ne li may wax nii dama koy taal live nit yi dégg ko lan mooy lii à chaque fois quand on est comme ça léegi léegi nii lañ ko nar a jàppoo ba kañ ba 2023 ah, ah procès bi saa yu amee boo yëngal nit yi dee Macky Sall reculé mais pourquoi Mais Macky Sall, ka on lui a confié tout, toute cette force qu'il a, c'était pas par, pour nous tuer Macky Sall bu doon bëgg na sénégalais bëgg na réew mi laa la wax day pri pri euh, comment dire privilégié le dialogue même pas le dialogue mais ku jur moo mën a baale man su ma juree at ba fépp fu mu mënti ma ne la su ma amoon doom bu ñu ma dénkaane sax ma téye ko mu ñëw sama kër ma téye ko dama koy téye ni doom bi ma sukk jur. Macky Sall tey jii lu mu nekk di def population sénégalaise bi bu ñu ko defoon Aliou Sall du ko neex. buñ ko defoon njabootam du ko neex lu tax saa yu taal réew mi du du bàyyi njabootam biir Sénégal lu tax mu leen di rawale lu tax mu leen xeex na saf dëgg xeex na saf képp ku ñemee combat bi ñoom ñoo ñoom nee nañ dañoo ñemee combat bi mais nañ bàyyil at waa ñoom nañu andi seeni nit ñu génn jàmmaarloo ak ñun bu kenn daw nan leen ko jaayante bu kenn daw xeex balaa muy neex da ngay génne la nga yor ñu génne lu ñu yor ñu toog jàmmarloo bu kenn daw ñun ñëpp ñu xeex ñu xool kan moo ci perte de euh, kan moo ciy perte. waxante dëgg depuis des années. ah 12 ans ñuy xeex ba egsi fu ñu egsi nii Macky Sall mettre la la démocratie en en en recul dañoo xeex ñun mosuñu xeex dara dara dara indépendance sax dañu ko sarax. dañoo toog rek jékki saa ñu sarax ñu indépendance mais am leen jël leen seen indépendance te ba léegi jëluñu suñu indépendance parce que ku jël indépendance mooy ki am la mainmise sur sur sur sur ses ressources ressources yëpp ils sont contrôlés ils par les occidentaux na leen waxante dëgg na leen waxante dëgg ñun bu ñu doonee ay bañkat di xeex di toog di waxat yéen c'est pour que ngeen conscient Elisa lu mu am mën nga ko am keneen ak keneen lu mu am mën ñun ñëpp mën nañ ko am mais ci gouvernance bu baax pourquoi mu war a mën a féetee nii lu tax mënul jaar yoon nii lan moo war a tax Sénégal